kuy jaar diggante croisement Cambérène ak rond-point bi miin nga xet gu bon giy jóge ci dépôt mbalit mi nekk ci marché Gueule Tapée bu Cambérène Alioune Ba doon fa ab commerçant ci marché bi di ñu wax jafe-jafe yi ñuy dund ak mbalit mi lay ah daanaka ñun dañoo deew ba pare di wax dëgg yàlla ndax lii moom xam nga ne dafa xeeñ trop yow mii sa jëm bopp sax li nga siy jëlee moom boo moytuwul di nga am tuuti feebar yaa ngi comprendre te ñu chaque jour fii lañ nekk est-ce que comprendre daanaka lu ñuy wax si mbalit bi comprendre nga ngay jël seen matuwaay wax yàlla moom sonn neen trop trop trop sonn boo xam ne xamuñu dafa jéggi dara daal yaa ngi comprendre mais dafa am loo xam ne tamit nguur mi dafa war a jug lii ndax kenn ku ne du pour ñun kese am na ñu ñoo xam ne ñoo ngi romb fi chaque jour boo nekkee si si ngay gën a sentir mbalit bi comprendre nga mais dafa am loo xam ne daal nguur bi dafa war a jël matuwaay bi affaire bi sotti comprendre nga mbalit bi dañoo sonal trop trop trop trop amuñu lu ñuy def amuñu fii la ñuy dund chaque jour ran waaw dañoo sonn si mbalit bi trop trop mbalit bi dañoo sonal wax dëgg yàlla. Mandiaye ñoo moom nee na ñaari marché yi jàkkaarloo te bokkuñu mairie loolu bokk na ci lu yokk seenu jafe-jafe. metti lool te mënuñu si dara metti na trop te mënuñu si dara te tey li gën a garaaw tey set na sax tey set na ay accident moto yoo xam ne chaque jour ay accident moto dafay moto yi dañuy daanu fii toujours xam nga loolu dama ko jëlal encore fii dañu fi jaay ay lekk gis nga ko yëpp ay lekk la xam nga loolu naay boo doon lekk sa orange tey da ngay jekk benn weñ ñëw dal ci kawam te fee lay jóge ñëw te loolu lépp day indi ay feebar yoo xam si bul xam lan la lay jural ëllëg waaw te loolu xam jékkul naay boo xoolee loolu ñu mun na ko kaas ndax ñaari marché yi du benn ñun ci marché bi lañ nekk voie mbeleem ci beneen voie bi la nekk adresse marché bi mooy mbalit mi rek tey koo fi woo sa benn xarit tey danga naa ko maa ngi mbalit bi fii la lay fekk xam na ne fi mooy place mbalit bi xam nga loolu ab dawalkatu saret moom mi ngi joxoñ délégué de marché yi baaraamu tuuma doy na trop waaye dañ cee mënu dara parce que mbalit poubelle bi moom nekkul ne chaque jour ñu ngi koy utal programme waaye programme bu ñu ko utal rek ne rek day échoué du mën a du mën a dem chaque jour parce que barke dem rek lañ fi ñëw ne fii ak 3 euh, jours rek moom mu jóge fi waaye boobu léegi mu ngi fi parce que ay oto la woon mooy ñooy xëy ñëw di xëy di jël mbaliti waaye loolu ba léegi mënu loolu moom xaw naa doy waa trop parce que ñu ngi naan euh, maire bi la taw maire bi bu mu ñëwee mu ngi naan délégué bi liggéeyoo kon dèjà rek foofu kenn mënu xam kan moo liggéeyul parce que boo ne ñii ñu ne maire bi la taw maire bi ñëw na barke de bu fi bi mooy li expliqué noonu dafa wax ma kii bi délégué bi ne yow liggéeyoo Habib Cissé di délégué marché Cambérène di weddi tuuma yi ñu teg seen ndodd ba mu set wecc ñoom délégué en tant que délégué ku fi jaar wala ku fi ñëw da ngay yaakaar ne ci délégué yi la or que du ci délégué yi def nañ lu nekk pour bëggoon lii bañ fi am mais bi ñu demee ba gis ne euh, autorités yi demandé nañu njekk ci ne nii rek la mën a demee moo tax ñu bàyyi ko fi waaye aussi ñun itam def nañu sunu réunion li ñu d'accord ak ñoom. moy ñu dégager fi euh caisse yi ndax amatul benn marché boy dem fekk fa caisse mbalit li ngay gis kay moy auto yi nga xamné ay ramassage bu ñu xëyee génné bu nit ñi waccé ñu arrêté ñi nga xamné ñoy xey ci si lu fi tilim ñu génné ko waaye nak lolo bi nga xamné euh, d'accord nañ ci ba ba amaguñ ci benn satisfaction euh saa yu ñu waxtané ak maire bi actuel lim ñuy wax mooy préfet nee na ko lii wala ICC nee ko lii. mu teg ci ne mbir mi dafa rax leneen. waaye li nga xam ne ñun moom lañ gëm nag te bërki démb sax àgg nañ ceeg moom te du du ñu si mooy ne am na sabotage te sabotage bi maire bi jigéen la ñi ko war a dimbale mooy ICC actuellement biñ toogee moom. Euh, li ñu li li li ñu gëm mooy ne am na fu sabotage bi di jógee mais du ci commune bi parce que moom bu doon bu sañoon lii du fi am ñun tam buñ sañoon lii du fi am man ci suma bopp waxtaan na ak euh, concessionnaire bi nga xam ne moom lañ ko jox <coughs> mu ne ma li ma ko proposé mooy est-ce que bag yi gannaaw moo indi problème yow amuloo oto yu mën a indi Euh, ramassage yu ko yu mën a remplacer bag yi mu ne ma loolu am na bu leen neexoon tey tey mu am mais information boobu pour ma joxe mu jàll dafa të li mu li mujj mooy lëndi ba le ci lañ ci la door a àgg ci loxo nopp maire mu ne ma loolu amul problème. nga nekk commerçant client wala sax ngay jaax ci marché Gueule Tapée bii yaa ngi ñaawlu xet gu bon gii di jóge ci mbalit mi nga xam ni mën naa jural askan wi ay jafe-jafe yu bari ci seenu yaram Merci de vous abonner à Pikini PRODUCTION. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur